Nous sommes chers en français directement, comme ça, on a discuté. Puis euh, il a trouvé que j'étais sympathique. Il a commencé à discuter avec moi de relations internationales. Bon, parce que le débat semblait tenir, euh, il m'a pris en sympathie. Et depuis lors, euh, jusqu'à quelques semaines, on est moi. C'est un homme euh, dont je retiens l'excellent commerce, le très haut niveau de culture, d'une intelligence très très très fine et la subtilité vient de là. Euh, c'est donc euh, quelqu'un qui a été une référence pour nous au niveau du quartier parce qu'on a grandi dans le même quartier, euh, un modèle. Et il ne manquait jamais une occasion de, nous sermonner, de nous remettre sur le droit chemin, comme ça se faisait à la belle, époque. La rue participait, bien sûr, ça ne fait plus aujourd'hui. Et c'est pourquoi on voit beaucoup de dérapages. Donc mes grands son toujours mes grands. Là, ici, c'était mon grand. Et c'est à ce grand-là que je viens rendre aujourd'hui en présentant mes condoléances à sa famille et à son épouse que je viens de, avec qui je viens de parler. Une référence et un modèle. il a été d'ailleurs pour, pour toute sa profession. Parce que je garde encore en mémoire les Mbaï Sidimbaï, le Djadji Touré, etc., qui étaient, qui étaient des références dans la presse. On ne voit plus de performance et on le regrette. je pense que si euh, la jeune génération de, de, de, de journalistes euh, se référait à ces modèles-là, eh on aurait beaucoup amélioré les choses. Donc je pense que des références qui sont là, dont il faut encore continuer à s'inspirer. Voilà. Ah, mais est-ce qu'un journaliste Nous avons traversé. Nous étions étudiants à Paris. dans les années 70, militants tous les deux à l'Association des étudiants sénégalais en France. Ce que je retiens de lui, c'était d'abord sa passion pour le pays et son amour pour le pays et au-delà du pays de l'Afrique, parce que nous sommes battus à l'époque pour que l'Afrique puisse émerger non seulement du sous-développement, mais de mainmise étrangère. Je ne l'ai pas, très, très, euh, je l'ai pas beaucoup suivi quand euh, on est retourné, on est rentré tous euh, au pays pour servir. Mais ce que je retiens, c'est que dans sa profession, n'étant pas moi-même journaliste, je ne peux pas en parler avec autant d'autorité que les journalistes eux-mêmes. Ce que je retiens, c'est qu'il a fait preuve d'une grande de, de, de, preuve de déontologie et d'éthique pour assainir la profession. Pour que, parce que quand même, le journaliste n'est pas n'importe qui. C'est un, c'est un pont c'est un passeur d'événements, d'analyses, euh, d'informations, à partir desquelles le citoyen lambda peut se faire une religion et avoir un esprit critique suffisamment ouvert en même temps pour pouvoir comprendre les enjeux du moment. Et je crois que ce qu'il a fait dans ce qui s'appelle Corède ou quelque chose comme ça, euh, c'était une tentative de lancer une alerte à ses, à ses, à ses collègues du métier pour qu'on prenne au sérieux le métier de journalisme. ben nit ku baax dem na nit ku dugg dem na koo xam ne kii bi moo xamee ak léegi def na diir bu mag parce que bi ñu nekkee étudiant lañ xamante Paris mu nekk koo xam ne kii ku bëggan réewam la ku bëggan Afrique la ku bëggan li mu doon def la ba pare end ceeg yar ànd ceeg teggin euh, doo ko dégg mu ku mu wax lu bon ci ci nit day ree rek donc bi mu di ñëwee ñu ñibbisi ñun ñëpp mu nekk ci métier bi ñuy wax journalisme euh, def na fa liggéey boo xam ne bi ay naataangoom journaliste mën nañ ci wax lu ëpp man lu ma ci mën a wax parce que man du ma journaliste mais xam naa ne daal li li taxal mu doon xeex mooy journaliste dafa am responsabilité responsabilité boobu moo tax que bu fekkee ne bi moom mooy jàllale mooy xam mooy mooy segg mooy tànn lim ciy wax pour que lim ciy wax mu mën a jëriñ askan yaa ngi yëngu si wàllum cinéma est-ce que gis nga si loolu. waaw euh, am na ci passion parce que temps boobu li ñu koy xamante euh, dañ daan méditer aussi. du cinéma de Sembène Ousmane donc euh, mënu wax ne Euh, lu ko soxalan la parce que mu suñu ànd ci projection bi ñu ñibbisee mais xam naa ne lépp loo xam ne lii dafa ànd ci mbéyeef. li wooye man mbéy mooy culture waxuma aada waxuma cosaan mooy li ngay xaay danga koy béy danga koy gëstu da nga koy saytu euh, yaakaar naa ne bu ñu aman condition yi ñu war a am ci ci réew mi ku mel ni moom xam ne dana si mën a jàngale lu bare bare waaw Bonjour. Monsieur. Hum? Ça va vous allez. waaw man nag j'ai xam nga man nag j'ai j'ai j'ai peur de la caméra. waaw mais mais mën ngaa wax. voilà juste témoignage si euh, li nga jot a xam ci Mbaye Sy Mbaye. waaw bon Mbaye Sy Mbaye bon je l'ai connu en tant que journaliste qui a enseigné au CESTI. moi qui vous parle j'ai enseigné au CESTI pendant 39 ans. Bon, vraiment, il fait partie des meilleurs formateurs au niveau du CESTI. Comme l'a dit mon collègue euh, Cassé, il était à cheval sur l'éthique et la déontologie. Bon. journaliste du temps de Senghor n'était pas possible. Et il fait partie des meilleurs journalistes sénégalais du temps de Senghor. on peut citer on peut citer Mbaye Mbaye Alioune Gomis Baba Racine Sy et d'autres vraiment il a beaucoup apporté donc au CESTI et sa mort est une grande perte pour la profession journalistique je souhaite que le tout au paradis eh, mën a wax ci Mbaye Sidi mooy maa ko xamee CESTI parce que man mi wax ak yéen CESTI laa yoon jàngale nekkoon naa ko directeur des mbay si Sidi mbay bi mu ñëwee CESTI vraiment war na bay na waram ci mbiru jàngale parce que li mu doon jàngale mooy éthique ontologie jàngale na ko bu baax vraiment maa ngi ñaan que suñu borom eh, xare ko ci àdduna yi gën a koowe kon mun nañu wax ni mbir ma nañ li nga xamante ne nii moom mooy corps euh, bi daanaka délégation bu takku moom fii daal di nekk nit ñi daal di nañ déplacé wu bu baax a baax ngir ñëw fekkee li nga xamante ne ni moom mooy levée di corps kii di Mbaye Sidy mbay témoignage yi nag euh, yaakaar naa ne yéen ñëpp dégg ngeen ko. daanaka benn la ku si nekk euh, jot na yëkkati wax lu mu xam ci ki nga xamante ni nii moom moo fi tëdd tey ji di Mbaye Sidy mbay nekkoon journaliste euh, bu mag formateur Mamadou kase wax na ko euh, bu ñuy nekk France ay xarit lañ woon mais li mu gisoon ci moom mooy nit ku bëgg réewam bëggoon lépp loo xamante ne nii luy jëmal kanam réewam la donc euh, témoignage yi aussi ñu ngi gis ki nga xamante ni moom mooy euh, président de l' assemblée nationale gis nañ ko fi mu ngi ne toog gis nañ fi aussi ministre de la communication bu bees bii di Alioune Sall moom tamit mu ngi ne toog mu ngi ci wet ga ñu ngi gis ki nga xamante ni moom mooy euh, député bi di Abdoul Mbow kooku tamit mu ngi fa toog donc mën nañ wax ni autorité yi ñu ngi fi loolu rek di wane. Euh, dayo bi nga xamante ne nii ci fi tëdd tey amoon na ko ak di firndeel rek ni jot na fee liggéey lu ama am solo ci wàllum tasum xibaar it ci loo xamante ne nii luy jëmal réew kanam la donc déglu ngeen directeur bu CESTI bi ak ñu mu jàngan nekkandoon en tout cas au CESTI ci luñ fi jot a yëkkati si témoignage mu doon lu ama am solo Bougane mi ngi nii tëdd. tarixa bi mu bokk. tarixa bi mu bokk. muy tarixa Cheikh Saad bu Chérif. muy Cheikh Saad bu Chérif xayatu. gam-gam lewu ko ak dara. gam-gam lewu ko ak dara. da koo jàpp jàpp bu wér. dafa jàppoon tarixa boobu bu xaadir yaa jàppin bu wér a wér. na ko bàyyam jàppe woon. na xam ni moom la ko wajuram jàppe woon. man loolaa xam ci moom. man dey loolu laa xam ci moom. lu mu mës a wax ak yow. lu mu mës a wax ak yow. bu nee barke Cheikh Sadbu. bu la nee barke Cheikh Sadbu. jeex na. xamal mi wax boobu jeex na. kenn mënutul la fexe. kenn mënatu a fexe. ba wax ba soppiku. ba wax ba soppiku. as gor a ngi nii. as gor a ngi nii tëdd. nit ku yiw ngi nii. nit ku yiw a ngi nii tëdd. ku bëgg ay mbokk ma ngi nii. ku bëgg ay mbokk ma ngi nii. koo xam nii day. koo xam ni day. bu fekkoonte ni. bu fekkoon te nit ñi la ñuy war a waxtaanee moom. nit ñi li ñu war a waxtaanee ak moom. waxtaanee nañ ko ak moom. waxtaanee nañ ko ak moom. jàmm dana bari lool. kon dey jàmm dina bari lool. ndax yéenewul kenn ay. ndax yéenewul kenn safaanu jàmm muy ay. waxam yëpp. waxam yëpp nag. mooy na Sénégal am jàmm. mooy yàlla na Sénégal am jàmm. service bu mu nekkit. service bu mu nekkit. la mu fa doon bëgg. la mu fa doon bëgg. la mu fa doon dox. la mu fa doon dox. mooy jàmm mooy jàmm. mbokk yi nag. mbokk yi nag. yëg nañ demam tey. yëg nañu demam tey. waa nag yàlla moo ñu ko joxoon. yàlla nag moo ñu ko joxoon. te la mu waxoon jógu ci. te la mu waxoon day moom yàlla jógu ci nag. ndax ñun ñëpp dañoo digoon. ndax ñun ñëpp dañoo diggoon ni. danañu jël kenn par kenn. ñu jël kenn par kenn. walla ma ñëw. wala ma ñëw. ñi ci desit walla wala ci des it. booy boo nu waaj. bee boo ñun ñi nga xam ne ñoo fi taxawandi nañu waaj. yàlla na soree nag. yàlla na app yi soriantoo. te fekk ñu ci lu neex yàlla. te fekk ñu ci lu neex yàlla. may sant nag mbooloo mi yëpp. may sant nag mbooloo mi yëpp. di leen masaw. di leen massawu. di massawu njaboot gi. di massawu njaboot gi. ki nga xam ne nii. ki nga xamante ni. ñoom bàyyiwuñ ko benn yoon. ñoom ñi nga xam ni famille bi bàyyiwuñ ko benn yoon. amul benn yoon bu mu sentir vieillesse nee na amul benn yoon booy ñëw fekk mu sentir vieillesse am. amul benn yoon. amul benn boo ñëw. booy ñëw. mu am comportement boo xam ni. mu am benn comportement boo xam ni. da ngay wiccax sa bopp. da ngay weddi yàlla lii ni araab yi di wax suul adab doo ko gis ci moom. te loolu la ko def. te loolu nag la ko def. am am. ñu ko dese. ñu ko dese. ñu baax ñu baax. ñu ko tenir ñu ko tenir. te jàppale ko te jàppale jàpp ko. te jàpp ko di ko dimbali. te di ko dimbali manqué wul dara manqué wul dara. ñooñu yàlla na leen yàlla fay. ñooñu it yàlla na leen yàlla fay. yàlla na yàlla sama teg loxoom ci ñoom. yàlla na sunu borom teg loxo ci ñoom. ñu di ko jaal ñëpp. ñu di ko jaal ñëpp. Sénégal gépp Sénégal gépp nag service bu mu mës a jaar ak service bu mu mës a jaar di remercier it di remercier itam personnalité yi nga xam ne nii yi nga xamante ne na xam kenn ku ne personnalité nga nee na day kenn ku ne personnalité nga loolu la yàlla dogal loolu la yàlla dogal waa nag njiit it waaye njiit it yàllaa ko dogal yàllaa ko dogal te mal civilisé. te mal civilisation. mi ngi tàmbalee ci mi ngi tàmbalee ci. bañ a nangu lu yàlla dogal. bañ a nangu li nga xam ni yàlla dogal na ko ci jaamam. kon ñooñu seen cër. kon ñooñu seen cër. ak seen wàccuwaay. ak seen wàccuwaay. dañ leen koy jox. ñu leen koy jox ba mu mat sëkk. ku ne nag bëggoon ngaa mën a wax. nee na dey ku ne bëggoon ngaa mën a wax. ndax ku fi ñëw ku nekk. ndax ku fi ñëw ku ne. sa diggante la ak moom. sa diggante la ak moom. la nga ci bëgg wax lépp. li mu fi bëgg wax yëpp nag. buñ ko toppee nag. buñ ko toppee nag. duñ fi gaaw a jóge. duñ gaaw a jóge. wante nag ñu tax na lim ñi Fofana Seck wax léegi kenn rek lañ ciy tegaat muy imam Omar Diène ñooñu ñooy waxal ñooñu ñooy waxal seen bopp seen bopp waxal réew mi yëpp waxal réew mi yëpp waxal ñi fi toog ñëpp waxal ñi fi toog ñëpp ngeen baal ñu àq loolu la imaam Omar Diène mi nga xam ni mooy sunu secretaire général des imams mi ngi nii ci gannaaw imam ñu wax la dal mashkoura jë jë jërëjëf kon ma Ndiaye li nga wax rafet na ñi ngi jégalu ñëpp rek li mu ko junjee léegi doy na euh, ci lu ñu war a bañ a bamtuwaat. nee na li ma njaay wax doy na sëkk. kilifa yi nekk yëpp gis nañ leen. nee na kilifa yi fi teew yëpp nag. amul kenn kuñ ci gisul. ñu jéggalu rek jukki ci président de l'Assemblée nationale Amadou maam Diop. nee na ñu ngi jéggalu di ci jukki ki nga xam ni mooy président de l'Assemblée nationale Amadou maam Diop. ak ministre la communication Alioune Sall. ak ministre communication Alioune Sall. ndax ki fi jógee journaliste la woon. ndax ki fi jóge itam journaliste la woon. man mii gis naa toute génération de journalistes confondu ñu teew ci jataay bi. nee na moom mii taxaw gis na génération journalistes yi ne ci réew mi yëpp ñu tax taxaw fii. ci biir place ñenn mag ci man ñeen ñi nekk bàyyi ci man. nee na ñenn ñi nag. bàyyi lañu ci man ñeen ñi mag ci man. ci ndigalu famille bi. ci ndigalu famille bi. ñu ngi jox kàddu koo xam ne xaritam la ñëpp xam ko muy Pierre Goudiaby Atepa Pierre Goudiaby ñëwal def sa sa seede. kon nee na kàddu gi ñu ngi koy jox ki nga xam ni mooy Pierre Atepa Goudiaby. mu ñëw def seede mu ñëw def ay seedeem. xaritam di lépp maa ngi nuyu ñëpp. mbokk nee na mi ngi nuyu képp ku fi teew. ki fi jóge nag mag la woon ci man. nee na kii nga xam ni moo fi jóge di mbay sii di mbay mag la woon ci moom. taxawaaw nee na dey taxawaayam ci réew mi amul benn sikki sàkk bu ci am. rawatina métier bi nga xam ni rawatina métier bi nga xam ni ci la nekkoon. Senghor waxoon Senghor nee woon na ku bëgg a xam diction. nee na na nga déglu sii di mbay defe naa loolu. résumé na li nga xam ne. résumé na li nga xamante ne. tëdd ki tëdd tey. li mu tekki woon ci réew mi. li mu tekki woon ci réew mi. li mu ciy yokk mooy sant. li mu ciy yokk mooy sant. jabaram soxnaam Aïda Diagne. ak doomam. nee na gis na dey famille bi seen taxawaay bi ngeen am ci moom. nee na. nee na moom dey seede la ci ndax gis na tëraay bi yàgg na metti na waaye boo ñëwee ci foofu doo am dara loo xam ni dinga ko gis lu dul loolu. nee na mi ngi jaale ñépp nag. ni yàlla na ko yàlla xare ajjana kon nag mu ni kon nag ki ñu war a jox kàddu ki ñu war a jox kàddu kooku de ñëpp xam nañ ko ci Sénégal kooku nag ñëpp xam nañ ko ci Sénégal ndax boo mësaan a wax mbay siidi mbay ndax boo mësaan a wax mbay siidi mbay Ibrahima Bayo Ibrahima Bayo Doudou Diène Doudou Diène kooku mooy quartor bi ko daan tëj muy Omar Seck nee na mooy ñeent ñi ko daan tëj muy Omar Seck moom moo war a ñëw jël kàddu def seede ci magam jooju mu liggéeyan ak moom mu nekkoon seen kilifa nekk rédacteur en chef bu rajo Sénégal Omar kaay nga def sa seede ci sama jooju. Omar bisimilah. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp ñu teew. mbokk yi Omar Seck mooy ñu fi teew ñëpp mi ngi leen di nuyu. di leen jaale Mbaye Sidi Mbaye. nee na di leen jaale li nu bokk muy Mbaye Sidi Mbaye mii. Mbaye Sidi suma confrère la woon. nee na Mbaye Sidi Mbaye confrère am la woon. waaye suma mbokk la aussi. bu dul loolu it mbokkam la woon. mag la woon. magam la woon. ñun suñu famille. ñun suñu famille. famille Seck la. famille sekk la. famille Mbay. ak famille Mbay. jabaram mën na ko seede. ma man mii mën naa ko seede. suñuy ñaari baay. seen ñaari baay. ay mbokk lañu. ay mbokk lañu. Sidi sama frère la. kon Sidi frère am la. sama frère ma fekkoon journal parler. nee na frère boo xam ni la fekkoon na ko journal parler. bu rajo Sénégal. bu rajo Sénégal. Mbay Sidi jóge France. Mbay Sidi jóge France. RTS nekkoon ci état bam ci fii Sénégal. nee na RTS nekkoon ci benn état fi ci Sénégal ci Sénégal. ci état bu dundam ci fii ci état bu dundam fii ci RTS. mu nekkoon fa journaliste. mu nekkoon fa nag journaliste. di présenté ak ñun journal parlé. di présenter ak ñun journal parle waaye nag di def xam-xamam à la disposition de la jeune génération. waaye nag di def xam-xamam ci ñi nga xam ne ñooy ñi ko féete ndaw te ñu nekk ci génération bi gën a féete ndaw. Mbaye Sidi mbay journaliste la woon mais intellectuel la woon. nee na Mbaye mii journaliste la woon waaye intellectuel la woon aussi. amoon xam-xam. bu bari woon xam-xam itam. dal xale yam fa fekk. nee na xale yam fa fekk moo leen daan jàngal. man ci laa bokkoon. man mii ci laa bokkoon. bu ñu daan bind journal parler. bu ñu daan bind journal parler. daf ko daan xool. daf ko daan xool. ca mbind ma ca mbind ma. ba ñuy yëg studio. ba ba ñuy yëg studio. ba di ko présenté. ku bëggoon liggéey bu rafet la. nee ku bëggoon liggéey bu rafet la. ku bëggoon liggéey bu baax la. ku bëggoon liggéey bu baax la. ku juboon la. ku juboon la. ku amoon xam-xam la. ku amoon xam la. neexoon baat la. ku neexoon baat la diction am na ko wax léegi am na ko wax léegi temps yooyu temps yooyu Léopold Senghor. Léopold Sédar Senghor. dafa daan déglu rajo lu bari. dafa daan déglu rajo lu bari. dafa daan wax naa nañu travailler suñu diction. dafa daan wax ni nañu travailler suñu diction. mbay si daan wax ni information. mbay si di daan na wax ni information. balaa nga koy wax. balaa nga koy wax. na la wóor. na la wóor. boo koy wax. boo koy wax. na nga ko wax ak humilité. na nga ko wax ak humilité. ak teey. ak teey. am na benn journaliste. am na benn journaliste bu ma laaj léegi. bu ma laaj léegi. ni ma ni ma. lan mooy différence bi. lan mooy différence bi seen liggéey yéen. seen liggéey. liggéey yéen suñu liggéey tey ak suñu liggéey tey lan la ñu mën a retenir ak lan la ñu mën a retenir ci sii Sidi Mbaye ma ne ko différence bi mooy ma ne ko différence bi mooy di wax lu la wóor di wax lu la wóor di wax loo xam ne nii fa nga ko jëlee fu wóor nga ko jëlee di wax loo xam ni source ba source bu wóor la muy rajo muy rajo. muy télé muy télé. di presse écrite di presse écrite. di réseaux sociaux di réseaux sociaux. loolu la Mbaye loolu nag mooy li nga xam ne moom la mbay Mbaye di jàngaloon. c'est une perte. nee na kon dey c'est une perte. waaye yàlla mooy joxe. waaye yàlla mooy joxe. mooy jël mooy jël. inna lillahi. inna lillahi. wa inna ilayhi on dañ koy ñaanal. dañ koy ñaanal. yàlla na ko yàlla jéggal. yàlla na ko yàlla jéggal. te yërëm ko te yërëm ko. sunu sœur. sunu sœur. Aïda. ayda bis la bu tiis ci moom. bés la bu tiis ci moom. waaye bés la bu yomb ci moom la. waaye nag bés la bu yomb ci moom itam. soxna su baax mi ngi nii. nee na soxna su baax day mi ngi nii. ku toppatoo woon suñu frère. ku toppatoo woon suñu frère. ku bëggoon suñu frère. ku bëggoon suñu frère. ku yaroon njabootam. ku yaroon njabootam. ku amoon diine ak jëkkëram. ku amoon diine ak jëkkëram. ñu ngi ko koy jaal. ñu ngi ko koy jaal. te yërëm ko lool. te yërëm ko lool. yàlla yàlla nag yàlla na taxawu ayda yàlla na taxawu Aida gannaaw bi mu jëlee ci lu rafet jëkkëram gannaaw bi nga xamee ni jël na mbay sii di mbay mii ci jëlin wu rafet kaddu gaa ngi noonu kaddu gaa ngi noonu ñaanal ko moo fi des nee na dara desatu ci lu dul ñaanal ko yàlla jaale ko ñëpp jaale ko ñëpp sant ñëpp sant ñëpp asalaamaaleykum jërëjëf euh, Omar imaam Omar Dieng mi ngi nii jërëjëf euh, Omar Seck jërëjëf Omar Seck. léegi kàddu gi Pathé Fall Dieye lañ koy jox mu ñëw ñu ñaan ko mu jege si suñu baay boobu. Pathé Fall Dieye lañu wax moom la ñuy ñaan mu jege si. mu def témoignage Pathé Fall Dieye nag pour jeune génération bi ñu ko xamul. nee na Pathé Fall Dieye pour jeune génération bi nga xamante ne xamuñu ko. lii dal Mbaye Sidi mi jiitu. li dal Mbaye Sidi mi jiitu. moo nekk ci moom. ndax dañu nekk ay enseignants. ndax ñoom dañu nekk ay jàngalekat. avant ñu nekk ay journalistes. avant ñu nekk ay journalistes. histoire histoire rajo Sénégal nag. histoire rajo Sénégal nag. Pathé Fall Dieye bi moo ci nekk directeur rajo Sénégal ak directeur télévision. nee na Pathé Dieye bii moo nekk directeur rajo. Sénégal ak télévision bi. kaneen kaneen ki ko ci wuutu. keneen ki ko ci wuutu. mooy Omar Seck. mooy Omar Seck. bi doon wax léegi. bi doon wax léegi ñoom ñaar rek. ñoom ñaar rek ci histoire u radio diffusion télévision. ci histoire u radio diffusion. télévision ñoo ko bokk jiite rajo bi. ñoo ko bokk jiite. jiite télévision. jiite télévision bi. kon kii mooy góor gi Pathé Fall Dieye. kon kii mooy Pathé Fall Dieye. mu liggéey ak Pape Racine mu liggéey ak Pape Racine Sy. Gabriel Jacques Gomis. Gabriel Jacques Gomis. Ngeewaan Niang. Ngeewaan Niang. nekkee xale dans les années 60. ñooñu bi ñu nekkee xale dans les années 60 ñooñu tax a bëgg métier. ñooñu tax a bëgg métier journaliste journaliste ak bu rajo ak bu rajo. sa seede ci saraka jooju bisimilah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. aoudu billahi mina sheytaani rajim. nee na mi ngi muslu ci seytaane. la hawla wala quwwata illa billah. la hawla wala quwwata illa billah. inna lillahi. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un siidi yàlla na ko yàlla baal te jéggal ko siidi yàlla na ko yàlla xare ajjana ci kattanam ci kattanam ak mbaaxam ak mbaaxam ak yërmandeem ak yërmandeem ak képp ku mu fay fekk képp ku fay fekk yàlla na ko yàlla baal te jéggal ko yàlla na ko yàlla baal dama yaakaar ni wax ji jeex na nee na mbokk yi dama yaakaar ni wax ji jeex na li mbokk yi wax ba pare li mbokk yi wax ba pare Omar wax ko suñu rakk Omar suñu rakk wax ko jeex na jeex na ayda lañuy ñuy jaal Aïda yow la ñuy jaal xam nañ la yàgg na yow dey xam nañ la yàgg na lool du tey de du tey de nga ànd ak euh, Mbaye Sidi Mbaye nga ànd ak sii di mbay ànd bu rafet ànd bu rafet ñu xam ci dara ñu xam ci nag dara ndax Sidi ndax Sidi ak ñi. ak mi ak kii tudd léegi. ak ñi nga xam ni ñoom la Fofana Seck tudd léegi. ñoo àndoon. ñoo àndoon. ci jàmm. ci jàmm. sutura. sutura. teraanga. teraanga. yiw. yiw. ak liggéey. ak liggéey. fonk liggéey nag. fonk liggéey nag. parce que liggéey. parce que liggéey. mooy teral doomu aadama. mooy teral doomu aadama. ñu doon liggéey nag ci Sénégal. ñu doon liggéey nag ci Sénégal. suñu kem kattan. suñu kem kattan. ndax suñu liggéey teral ñu. ndax suñu liggéey teral ñu. alhamdulilahi rabil alamin. alhamdulilahi rabil alamin. Mbaye Sidi mbay Mbaye di mbay ku bëggoon liggéeyam la. ku bëggoon liggéeyam la. mosu ko caaxaane. mosu ko caaxaane. ndax borom fulla la woon aussi. ndax borom fulla la woon aussi. liggéeyu rajo. liggéeyu rajo. ak télévision. ak télévision. ci booba jamono. ci booba jamono. boo amul fulla. boo amul fulla. doo ci liggéey nang ci war liggéeyee. doo ci liggéey ni nga war a liggéeyee. ndax. ndax danga war moom sa bopp. da nga war a moom sa bopp. te nekk ci situation boo xam ni. te nekk ci situation boo xamante ne. ñëpp la soxla. ñëpp la soxla. defe ni ñoo la moom. defe ni ñoo la moom. te moomuñu la te nga taxaw sa taxawaay. foog nga am taxawaay. boo xam ne bii. boo xamante bi dafay dëppoo ak say fulla. dafay dëppoo ak sa fulla. sa fayda sa fayda. sa deret sa deret. ak sa bëgg réew mi ak sa bëgg réew mi. ba agsi fi nga agsi. ba agsi fi nga agsi. kii loolu la daan def kii nag loolu la daan def. soxlawul ma guddal parce que wax ji jeex na. soxlawul ma guddal ndax wax ji yàgg na. liggéey bu rafet. liggéey bu rafet. liggéeyal na ko Sénégal. na ko Sénégal. jaarale ko ci métier jaarale ko ci métier am. yàlla na ko yàlla baal te jégal ko. na ko yàlla baal te jégal ko. te xare ko àjjana. te xare ko àjjana. darajay Seydina Mouhamed. darajay Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi koy jaal journaliste yi. nee na maa ngi koy jaal journaliste yëpp nag. ñi nga jàng ñi nga xam ni moo leen jàngal. ñi mu jàngal. ak ñi ko jàngal. ak ñi ko jàngal. maa ngi koy jaal ñi mu jàngal. maa ngi koy jaal ñi mu jàngal. di ko jaal ñi ko jàngal. di ko jaal ñi ko jàngal. Hmm? def ci ñoom. bare na bare na yaatu yaatu na yàlla seen muur seen wërsëg yàlla nay sen muur seen wërsëg di muuru senegal di muuru senegal nag maa ngi koy jaal ñëpp maa ngi koy jaal ñëpp xarit yi xarit yi jogayaan yi jegeyaan yi ak ñëpp maa ngi koy jaal ak ñëpp rek yàlla na yàlla baal yàlla na yàlla baal ñëpp te jéggal ñoom ñëpp yàlla na yàlla defal leen jàmm yàlla na yàlla defal képp ku fi teew jàmm allahumma salli allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jërëjëf imam waaw kay waaw jërëjëf jërëjëf mon père. ma ngoog yóbbaale ko yóbbu leen. imam imam kii man mu yiw la. Fatick Fall Dieng. dafa na mu yiw a ngi nii. exemple bi rek bi ngay joxe su ma ko nee mon mu ne ma mu mu mu. seen frère. bu ko nee mon père mu ni ko moo jeune frère. ma ne ko yow sama baay nga mu ne ma ñoo bokk baay yow rakk nga ci man. man mu ni ko ñoo bokk baay ndax yow rakk nga ci man. te moom mii mën na maa jur. te moom mi mën na maa jur. moo tax sañu ma ko def mag. moo tax sañu ma mukk def ko mag. corporation bi ñu nekk nag journaliste yi. corporation bi ñu nekk journaliste yi ñi nga xam ne ñoo ma mag. ñi nga xam ne ñoo ma mag. ak ñi nga xam ne man maa leen mag. ak ñi ma mag. ak ñi ma maaseel ak ñi ma maaseel kenn ku ci ne gis naa la temps bi moo gàtt moo tax aw sañ sañu tudd sa tur waaye yéene bi mate na ko di ko jéggulu di wax nag entorse munta ñàkk moo koy lu ñëpp dafa am kenn koo xam ne nee na dafa am koo xam ni dafa ñaan pour def seede bu gàtt muy Mamadou Baal dafa ñaan télévision pour def seede nekkandook kii dëddu Mamadou Baal bitim réew bitim réew nee na nekk fii Mamadou Baal Mamadou Baal mënoo ñàkk a bañ def seede nee na mënoo ñàkk a bañ a seede bi nga ma ko ñaanee ma nangul la ko ma ko ñaanee ma nangul la ko ndax rakkam ji bi ma nekkaay seede ma ne ko sañu ma ko samay baay ak samay mag rek fi ne gën ma koo jege gën ma koo xam man bokk ma ci loolu li may def daal mooy torox lu joxe kàddu gi loolu du ma def la ne kii mooy Mamadou Ball directeur de la télévision nationale. ngeen ma ci kàddu gi. Mamadou mi ngi jéggalu ci kàddu gi. man yàgg nee na toogaay bi yàgg na. wante dafa am loo xam ne bëgg naa ko wax muy témoignage ci sama nekkandoo ak moom ci lu yàgg. nee dafa am loo xam ni nag muy ay seede yu mu bëgg a wax ci nekkandoo bu yàgg bu mu nekkoon ak moom. yàlla dafa def mbay si di woon enseignant man mii tamit ma doon enseignant. yàlla dafa def mbay siidi di mii doon jàngale def ñu defandoo benn concours bi ñu yóbbu ci benn université. yàlla def nag ñu bokkandoo def benn concours. xam ni moo ñu yóbbu ci benn université. université Bordeaux Salance. muy université Bordeaux. Salance salence ñu doon fa sordi euh, créer. nee na ñu toog fay créer. benn filière bu tuddoon technique de communication. filière boo xam ni mi ngi tuddoon technique de communication. man ak moom ak ndem si yàlla si Seydou Dia ñu nekk ñetti sénégalais yi fa njëkk a dugg. nee na moom moom la ak mbay Sidi ak Seydou. Seydou Dia Seydou Dia daan jàngale CESTI. daan jàngale CESTI te génn àddina. ba ñu fa nekkee. nee na ba ñu fa nekkee. mbay siidi nekkoon suñu mag. mbay siidi nag moo nekkoon suñu mag. di ñu uuf. di ñu uuf. di ñu conseiller. di ñu conseiller. lépp loo xamante ni door naroon nañ ko def pour dëng. lépp nara dëng daf koy jubbanti. bis bu nekk mu ngi ci suñu gannaaw di ñu. yow Sénégal. ñu ànd di liggéey di déggoo di waxtaan. ñu ànd nag di liggéey di déggoo nag di waxtaan. te Mbaye Sidi xam naa ne lépp loo xam ne nit mënoon na ko def ndax métier journaliste mi jëm kanam. nee na Mbaye Sidi lépp loo xam ni nit mënoon na ko def ngir métier jurnalist ndax jëm kanam. nee na Mbaye Sy di lépp loo xam ni nit mënoon na ko def ngir métier journaliste jëm ci kanam. def na ko. def na ko. ndax san nekk nañ ci période yoo xam ni. ndaxte nekk nañ ci période boo xamante ne. carte journaliste sax. carte journaliste sax. kenn mënatu ko woon joxe. kenn mënatu ko woon joxe. moom mii mu xar ci tànk tubayam. moom nag mu xar ci tànk tubayam. da ca liggéey. di ci liggéey. ba delloo journaliste yi seen seen yelleef. ba delloo nag journaliste yi seen yelleef. mu nekkoon nit ku professionel mu nekkoon nag nit ku professionnel. ku teey. ku koo xam ne bu dee wax. koo xam ne bu dee wax. nga xam ni kii baatu rajo la yor dafa neex a déglu. nga xam ni kii baatu rajo la yor dafa neex a déglu. déglu. ca neex a déglu booba. xol bu rafet ko ca yóbbu tamit. te nee na neex a déglu boobu xol bu rafet a ma tax. nit ku baax la nit ku baax la. kii tëdd ku baax nee na kii tëdd ku baaxoon la. yàlla na ko yàlla xare àjjana. yàlla na ko yàlla xare ajana amiin yaa rabbal aalamiin. ci jël kàddu bi. nee na mi ngi jéggalu bu baax ci jël kàddu bi. sama xol dafa dafa tooy. nee na xolam a tooy. ba ñuy nekk ak léegi. bi ñuy nekk ak léegi. léegi mu am ñeent fukki at ak am ñeent fukki at ak juróom. moom ak ba léegi. ak kii taxaw. ak kii taxaw. di Baba Diop. di Baba Diop. booba moo ngay jàng foofu moom. booba moom it ma ngay jàng foofu. bokk benn ñu bokk benn université. lëkkaloo lëkkaloo. guddeeg bëccëg ñoom. guddeeg bëccëg nag. ba nit ñi yàlla delloo see Sénégal. ba nit ñi yàlla delloo see Sénégal. jërë ngeen jëf imaam kon ñu dem nag ci kilifa jataay bi. kon nag muy président assemblée nationale Amadou Mame Diop président ñu ngi lay ñaan nga ñëw Euh, sa seede sànn ci kàddu kilifteef moom suñu borom moo koy def ci nit ñun na comme ay taalibe lañu fu ñu ko fekk dañ koy nangu ndax cër moom nit du ko jox boppam suñu borom moo koy jox nit kon nag gars yi nañu nangu kilifteef yi te fase àdduna bala mu ñuy fase laayi laayi lanta subhaani ni kuntu mina saalimin yonte yàlla yu nu si biir jën wa mm-hmm. boo ca delloo loolu li nga xam ne seede yi ñuy def am na solo ci ki fi jóge mm-hmm. ndax malaayka yi dañ koy yóbbul suñu borom mm-hmm. te mën na ci jóge wàcce yërmande soxna si sa borom kër li mu def mbooloo mi nekk sa ginnaaw kon nga war nga xam ni def lu baax ci kaw suuf rek moom solo monsieur président ñu ngi lay jox kàddu di wax aussi ne ministre la communication Aliou sal teew na fii ci jataay bi kon mbokk yi salaamaaleykum président assemblée nationale mooy jël kàddu Amadou Mame Diop nee na mi ngi jiital ci nuyo bi imaam yi. ak ku fi teew rek. Euh, jël kàddu bi nag. jël kàddu bi nag. dañ koy def au nom de l'amitié. dañ koy def au nom de l'amitié. mën nañ ko def aussi au nom de l'institution bi mën nañ ko def itam au nom de l'institution bi nga xam ni ci la ñu nekk. parce yàlla def na ni. parce que yàlla def na ni. am nañu ñi nga xam ni. am nañu ñi nga xamante ne. leen jàngal. jàngal foofu ci assemblée nationale te ay député lañu. notamment nag président Abdou Mbow. mais au nom de l'amitié comme démb ni mu demee woon ci kër gi. nee na au nom de l'amitié comme démb ni mu demee woon ci kër gi. parce que yàlla sunu xamee daf ko jaarale sama xaritu benn bakkan. yàlla def na nag sunu xamante maak moom daf ko jaarale ci xaritam benn bakkan. muy Ibrahima Faye. muy Euh, nu xam nag loolu tax nu xam si moom ay jikko. nee na looloo tax nag ba ñu xam ci moom ay jikko. mooy bëgg liggéeyam. mooy bëgg liggéeyam. maandu teem maandu teem. mais waaye fam parce que gis naa sama xarit bi yëkkati ko dugal ko à l'intérieur du Sénégal avec désintéressement si li nga xam ni sama xarit moo taxoon koy na ki nga xamee ni mooy xaritam jëlee na ko fii ci wayafaayam yóbbu ko ba ci biir Sénégal ca au fond du Sénégal. avec avec désintéressement. ñu koy jaale nag famille professionnelle am. di ñaan yàlla di ci àjjana yi gën a kawe amin di ko jaale monsieur le ministre Alioune Sall. di ko jaale itam monsieur le ministre Alioune Sall. ministre de la communication. ministre de la communication. bi teew. asalaamualeykum wa rahmatullah léegi nag kon waaw imaam Omar Diène mhm. nee na imaam Omar Diène moo war a jël kaddu moo war a jël kaddu waxtaan ak mbooloo mi. waxtaan ak mbooloo mi. delloo leen ci suñu borom. delloo leen ci suñu borom. def ñaan. def ñaan. ñu tëj waxtaan bi. ñu tëj waxtaan wi. li président assemblée wax léegi rek. nee na li président assemblée wax léegi. ci rafetal. ci rafetal. moom laay dëggal. moom laay dëggal. ministre de la communication Aliou Sall. ministre de la communication Aliou Sall. bi mu ñëwee représenté premier ministre Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Faye. bi mu ñëwee représenté le président ba euh, Bassirou. waaw président de la république ak premier ministre. ak ak premier ministre am. biñ ne dañ koy jox kaddu. nee na biñ ne dañ koy jox kaddu. mu ne sañu ko. mu ni sañu ko. magam a ngi fi. magam a ngi fi. kilifaam a ngi fi. kilifaam a ngi fi. muy président assemblée nationale. muy président assemblée nationale na ko yóbbaale. man j'aime bien ces formes de civilité. nee na day moom bëgg na civilité yu mel nii. ñëpp ñoo bokk ndey ak baay nañ def lu baax rek. wax nee na ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay. ñëwal. imaam boo ñëwee. Mhm. wax. Mhm. dee inna batsha rabbika la sadidun inna laa ala kulli shay'in xadir Fofana nee na ñu bàyyi xel dee ndaxte dee loo xam ne la amul kenn kumutul bett almawtu yaati baxtatan nit daal bu nooyee te jàpp ne dootul nooyi kooku dee moom dur ko bett waaye ku dul kooku rek dee di mën na la bett nee na ku nooyi ba nooyeetul kooku la dee dootul bett waaye kuy nooyi di nooyiwaat na ko wóor ni dee mën na koo bett imaam jëlal kàddu gi imaam bisimillah bismillahi rahmaani rahim. imaam mi ngi wax ni bismillahi rahmaani rahim. di sant yàlla bu baax nag. suma salaatu wa salaamu ala rasulillahi. di julli di sëlmal ci ki nga xam ne mooy sangi sang yi di seydil wujuudi. di lillahi wa inna ilayhi rajiun. di wax ni ñun ñii nag ci yàlla la ñu jóge woo. te ci xalaqal mawt wal xayaat. nee ñun. ñoo waxante woon ak sunu boroom ni ci xalaxal mawta wal li yabluwakumu ayyukumu axsanu amala. suñu dee la yàlla suñu boroom njëkk bind suñu dund. dee moom la yàlla njëkk a bind soog a bind suñu dund. ci bakken bu ne. ci bakken nag bu ne. ñu nangu woon koog moom. nee nangu woon nañ koog moom. ñëw ci àddina ñëw ci àddina. dinañu fi jóge it. ne muy contrat boo xam ni dan ko d'accord nag yàlla pour ñëw pe buñ fi jógee dañuy delluwaat ci moom. am na fu ñu nekkoon. am na fu ñu newoon. am na fu ñu ne. am na fu ñu ne. dinañu fi jóge. ñu fi jóge. dellu fa ñu nekkoon. delluwaat fu ñu nekkoon. mbay siidi mii mbay siidi mii tëdd. yàlla na ko yàlla. yërëm. yàlla yàlla jéggal. yàlla na ko yàlla jéggal. yal yàlla teg loxoom ci jabootam. yàlla na yàlla teg loxoom ci jabootam. ñu ngi koy jaal soxnaam. ñu ngi koy jaal soxnaam. ndax ñoo bokk dëkk. nee na ñoo bokk dëkk nag. man bi ma koy xam. bi ma koy xam. xale bu tuuti la. booba xale bu tuuti la. rakkam. rakkam. le ministre Babacar Nende mbay le ministre. Babacar Nende Mbaye. moo nekkoon suñu. yaayam sant Ndeye Samb. nee na yaayam tante Ndey Samb moo ma yóbbu mag moo ma njëkk yóbbu makk boobu vingt la am booba ñaar fukki la am nekk petit imam nee na booba ma doon petit imam mais ni may jullee fajar mais ni may jullee fajar ajjuma bu jot ajjuma bu jot daf ko neexoon daf ko neexoon ba am ci ay saaru boppam. nee na nag ba moom mu faf ci am nag ay saaru boppam. mu ne foog mu yóbbu ma Makka. mu ni nag loolu def ci kontaanoon moom aji ndey Samba ba ni foog mu yóbbu ko Makka. bu ma deewee nag ma jullee. nii nag bu ma fi génnee nag ma jullee. na nga taxaw ñu suul ma nga wàcc. nee na na nga góorgóorlu ba ñi may nangu nga bokk ci. ñetti ilimaan na ko denc. soxna soosu ñetti ilimaan ñoo ko denc soxna soosu. ndax bëggu lislaamam. ndax bëgg lislaamam. ndax nangu lislaamam ndax nangu lislaamam ndax bëgg dem màkk it ndax it bëgg dem màkk te bëgg yonent bi te bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nday sàmba doon ku baax loolu nag nday ajaa nday sàmba doon ku baax loolu du ma ko fàtte mukk loolu du ko fàtte loolu ko daal moo daal siidi mii ñun ñi ko taxawu ñëpp ay imaamu raati bu jumaa lañu wallaahi tey bi ma gisee saa si ngom fii bi ma gisee saa si ngom fii bërki démb na dafa ne naafila waa kër gi jàpp ko ne ko doo dem mënatoo dafa génn bërki démb ni day dem naafila waa këram jàpp ko ni ko doo génn ndax mag nga ndax nag mag nga mu ngi fii ñëw na léegi jaale nee na ñëw na ba fii jaale si mënatul dara mënatul dara bi ñu ne mbay siidi dem génn na àddina bi ne mbay siidi nag génn na àddina xëj na sax moom lañ ci jëkk a xalaat nee na moom lañ ci ñi ñëpp njëkk xalaat koo xam ne ànd ngeen 60 ans koo àndal juróom fukki at dara mosul ñaaw seen diggante. dara mosu cee ñaaw. lu dul tey rek ñu tàggoo xaajale ko. lu dul dee rek moo leen tàqale. ñëwam bi fii. ñëwam bi fii. war na wan nit ñi ne. war na wan nit ñi ni dañuy ànd ci ngor rek. nee na day war nañu ànd ci ngor rek. ak bëggante ak soppante. ak bëggante ak soppante. kon nag. kon nag. ñu ngi leen koy jaal di ko jaal suñu bopp. kon ñu ngi leen di koy jaal di ko jaal suñu bopp. di ko jaal ñëpp. di ko jaal ñëpp nag. di ko jaal soxnaam. di ko jaal. jaal ki nga xam ne mooy soxnaam Aysatu Jaañ ak njabootam yëpp. ak njabootam yëpp nag. wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla. Sénégal ñàkk nañu ku baax. Sénégal day ñàkk nañ ku baax. ku maandu. ku maandu. jàngalekat jàngalekat. borom xam-xam borom xam-xam. fa muy ñëw ca lagon dimance bu nekk. fa muy ñëw ca lagon dimance bu ne ñoom ña fay daje di waxtaan. ña fay daje di waxtaan ñoom borom xam-xam yi. di sottante xalaat. di sottante xalaat. bu ci ñëwul rek bu ci kenn ñëwul. ñoom dañuy wéet. dañuy wéet. ndokk yàlla bi nga xamee ne. ndokk yàlla nag bi nga xamante ne. wéet nañu dëgg nag. wéet nag lii nag mooy wéet. ndax ñu ànd ak juróom-benn fukki at. nee na dey ñu ànd juróom fukki at. di root kenn par kenn di root kenn par kenn. nee na di root kenn par kenn. ñu ngi bëgg a jeex. ah waaye ku la wéttali ku dul yàlla dina la mës a wéetal. ñu ngi koy ñaanal aljana. kon dañ koy ñaanal yàlla xare ko àjjana. moom rek a ko yore moom rek a ko mën. àjjana nag kenn yoru ko moom rek a ko yor moom rek a ko moom. ñu ngi sukkandiku ci loolu. nee na ñu ngi sukkandiku nag ci loolu. wax suñu borom. sa jaam bi sa jaam bi na ko jéggal. na ko jéggal. bi barakati. bi barakati yaa ayyatuha nafsu mutmaina irjii ila rabbiki radiyatan mardiya fa daxuli fi ibadi wa daxuli jannati yàlla na ko yàlla defal bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam may ñaan nag képp ku fi ñëw tànk yi nga fi jox si tànk yi nga fi jox si yàlla na ko yàlla def faru bàkkaar yàlla na ko yàlla def faru bàkkaar ak fajuk aajo ak fajuk aajo suñu ñaan ci moom it suñu ñaan ci moom it suñu ñaan ci moom it yal na ko yàlla nangu yal na ko yàlla nangu comme fi ñëw pour ñaanal comme dañ fi ñëw nag pour ñaanal ko nañ ko ñaanal nañ ko ñaanal aljana aljana ak njëgalu suñu borom ak njëgalu suñu borom kenn ku nekk jàng salaatul fatihi nee na kenn ku nekk julli ci yonent bi jàng faatiha. jàng faatiha. def ñetti ixlaas. def ñetti qul huwa allahu ahad ba saar wi jeex bu ci nekkaan ak bisimilah rahmaani ñu tëjee ko salaatu ala nabi. ku nekk wax ni lii maa ko defal. kii mbay siidi mbay muy addiyaam ci rasulillahi. yal na di këram. ñu def salaatul faatiha. الرحمن الرحيم بركة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بركة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والهادي إلى صراط المستقيم إن الله ملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له allahu shidduhu allahu shidduhu ajmahin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amin ya rabbal alamin بركة يا أيتها النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية آمين يا رب amiin mbay siidi yaa ngi jëm ci yàlla suñu borom mbay siidi yaa ngi jëm ci yàlla suñu borom yàlla na la yërëm yàlla na la yërëm yàlla na la jéggal yàlla na la jéggal yàlla na la tabal ajjana yàlla na la tabal ajjana yàlla na nga juboo ak ay laajam yàlla na nga juboo ak laajam yàlla jégal la jégal ñu jégal mbooloo mu jullit léegi la yonent bi ñaan ko yàlla defal amiin yaa rabbal aalamiin bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam subhaana rabbika wa salaamun ala mursalina walhamdulilahi rabbil alamin laa ilaha illa allah benn bi la ah waaw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 يعمهم التشفيع أجمع أكثر أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقت عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع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 وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع مباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أك أجمع وهو المصطفى